lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. salaamaaleykum waa série bi maa ngi leen nuyu yéen ñi déglu ñëpp. ak ñi dugg ñëpp di nuyu ku ci nekk turam ak santam di rafetlu série bi bu baax a baax a baax di la wax ne la série bi neex na trop trop trop trop mais nag audio yi ngeen di defee ba ku ci nekk mën cee jël numéro bu mën a tamit enregistré yéen ñi nga xam ne yéenay joxe seeni audio yeneen ñu bari ñu ngi leen di déglu te ñu ngi ciy jël ay leçon man ak sama xalaatu bopp laay wax maa ngi wax ci laal la Lalla dafa amoon loo xamee personnalité bi mu amoon ci jëkkëram mu ngi koy perte ndànk ndànk ndànk moo tax ñu ne àddina boo ci nekkee chaque jour da ngay calculer lépp looy def na nekk lu set Lalla dafa yoroon jëkkëram macha allah amuloon ak moom benn problème tey bu takkee wujju rek takkee ñaareel mënoon na continuer na muy demoon mu dem ak moom ak kër bu set wecc xol bu set wecc kon tey problème yëpp du ci dugg mais boo xoolee Lalla yu ñàkk fayda yi mu commencé dëgg ay defanteeg ay fayonte ay point am day gën a wàññeeku te xëy na bu defoon li nga xam ne moom la doon def avant bañu topp kenn kon heure bi ay affaire am dina gën a baax gën a neex kon Marème dina dem ba du fa am dara mais moom fu mu nekk nii dafa gën a may Marème place Marème nag li ma koy wax mooy fi mu teg tànkam foofu la nit ki bu la kenn xam li lay metti ak li ngay bañ Marème moom fi mu teg tànkam foofu la kontaan naa ci moom neexal na série bi wax dëgg yàlla Marème neexal na série bi waaw te man de wax dëgg yàlla ku xool ci Marème dinga sëy ba dee da ngeen bàyyi seen xel ci bopp mais Lalla moom instant yi dafa ñàkkal boppam fayda nekk fi naan day defante mën naa li la amoon lu may wax ngeen jël lu baax li rek teg ko ci kanam lu bon lañu teg ko ci suuf te xam ne dañuy waxtaan merci beaucoup au asalaamaaleykum wa rahmatullah waa chérie maîtresse noonu la ngeen def baa yéen a ngi ci jàmm alhamdulilah kontaan nañ torop ci série bi ni muy demee macha allah kontaan nañ torop suñu xol sedd na ñu ne amul lenn lenn lenn luñ ciy wax lu dul kontaan ci te di leen ñaanal rek sa kaw sa kanam Marème Diagne moom fi nga teg sa tànk foofu la macha allah ñun film bi ñëpp mu ñëpp a ñu ci neex mais. Mariam Diagne ak Racky moom surtout rakki ak mu Moustapha ba Moustapha nag bëgg naa mu déglu Racky bu baax ndax ñu nekk melaan niñ meloon ndax ñun moom wax dëgg yàlla mu Moustapha ak Racky seen ànd daf ñoo neex trop moo tax bëgguñ ñuy séparé wu fi bu ñëwee te ñoom nekk aussi nekkuñ ci si jàmm sax ñun daanaka mooy loolu mais <laughs> moo tax nag ñu bëgg sax sur ñoom ñuy nekk ci di ànd daal ba kenn bañ a xat seen diggante. jëlika tamit ñu ngi lay conseillé li nga def noonu la yow daal jàppal foofu rek lee bu mu la déranger ah, biram bu la sax déranger yow daal gëmal kooku te nga nekk ak moom te nga xam ne góor ñëpp bokkuñu yema ah, kii mën naa nekk ku baax ki de jàppal bu baax kon daan nañ trop macha allah ñu ngi leen ñaanal yéen ñëpp jàmm ak tawfeex feex ñaan seen film bi yàlla jëmale ko sa kanam ca kaw sa kanam ci lu baax ok nekk leen si jàmm waa Mbourodi ñu kontaan di rafetlu lii moom ñu ngeen ko defal ndax su film bu jeexee dañ si am commentaire te daañu am fu ñu ko waxee amaana lii ñu ngeen ko defal kontaan nañ si trop Marème Ndiaye yaa nekk si dëgg de dangaa gis loo bëgg rek dugg si dugg si ba jeex demal ak force laal la moom li muy def bett na nit ñi commencement bi daa joxoon bon exemple képp koy aawa kontaan si moom instant nag na aawa yi lu bari ndax problème bu amati danga naan aawee ah, ko def madame Ndiaye góorgóorlu rek yow jéemal a am sa jëkkër rek goro beeg laal la fee la ñuy toogi goro yi moom nii rek lañ fi nekkee moom ma ne manigance rek jaxasi jaxase rek lañ fi nekkee waaye xoolal du dul dëgg du yàgg mareem jàppal sa waaye te xam li mu bëgg jalika jalika muñal lii du dara àdduna la dalay gën a yee sa xarit la daan ànd ak yow jour bi ngay divorcé moo ci jàpp su ñëwaan fekk la sa kër di la jàppale tey nag bu demee bu dugg sa jëkkër dina la metti moom dina la metti waaye muñal rek muñal te jéem a fas sa xol xola jéem a bëgganteeg sa waay ba xale bu pare bi ngay àndal àndal ak xale bu pare bi ngeen defante seen yu baax nga xool ñoom ñaar fu ñuy mujjee loolu la àdduna moom du dara bon chance ñu ngi bàyyi commentaire ba beneen yoon. salaamaaleykum waa Lu Xew TV na def maa ngi si jàmm waaw may seetaan maitresse trente huit moom commencé ba tey nag moom maa ngi koy seetaan waaye série neex la neex na torop yal na leen yàlla lafal cat yal na leen yàlla defal jàmm di wax Marème rek fi mu ko foofu la man moom laa faral de fi mu ko jàpp foofu la na jàpp bu baax rek waaw ca bàyyi laal la liñ bëgg ko may li Lalla bëgg bum ko ko may de bu sëy bi tas suñ jàpp foofu la bonsoir salaamaaleykum salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen di jaax waaw macha allah moom lu rafet la lu neex la te puis yaa ngi koy suivre xale yaa ngi koy suivre première chose ma ñëw si Marème Marème macha du question que ne nag ne il me plaît que ne tout temps dama koy faral. dafa dafa ñàkk jom daal ñàkk jom bi mooy ne sama goro lu may safuma keneen ak keneen lu may wax safuma sama jëkkër moom ma ñor la moom na bàyyi doon complice mère bi loolu c'est tàllal la côté goog moom neexoon nga ma trop dëgg rek la yàlla bëgg neexoon nga ma trop mais dangaa dem li ngay comportement dafa dem daal ba benn côté il ma jaal maaya moom macha allah sama préférée la Marème moom je l'aime ma ñëw ci Jalika Jalika dafa sincère et puis dafa fidèle moom dara day ñëw mu dund ko benn instant pare ci nekk ci leneen et puis jox mënoon naa may joor mu wax ko su ko waxee peut-être moom dina comprendre ndaxte ex Marème bi dafa dafa dafa dafa topp faiblesse jox bu mu ëpp. da ko gagné par faiblesse mënoon naa déglu jox mooy loolu mais en tout cas daal tonton Cheikh daal bravo ndax xam nga tax man la bravo tonton Cheikh benn côté dangay ñëw ak xëtër wax mais Marème soo waxee rek dangay dal dangay wàcc affaire bi daal mention spéciale rakki nag moom mère bi moo ko waa wax vérité bi ndaxte rakki su ko déggee feneen peut-être que ne dina mere yaayam lu trop. boobaa mère bi dina dem bu bëgg a récupérer rakk yi mu tëggoo mais man daal mention spéciale à Marème Marème je t'adore <laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di ziar di ñaanal jàmm en tout cas seen série bi neex na waaye mère jaañ moom ni mu comporté woo waru koo comporté woo vraiment vraiment loolu waru ko def ndaxte bu fekkente ni kilifa nga daal da ngay tëddee njaaxaan naay nga yemale meen bu Marème sikkee it mënoon na ko yemale rek xam ne jabaru doomam la en tout cas lu mu def moom rafetlu ma ko dara dara dara rafetlu ma ko Marème moom ca kaw ca kanam rek doon si lu baax Lalla it mënoon na supporter Marème xam ne Marème rakkam la rek wujje moom bokk wërsëg la. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di bu baax a baax nuyu naa leen ziar leen maa ngi nekk ci jàmm bu baax a baax ah tey moom kontaan naa tey moom toj wallaahi tojati na fi xanaa xamu ne gis nga ñëpp meloon ni Marème mi wallaahi léegi dil yi jeex sa yi fi bëri nga gis fi ñuy am ay problème di tas ay dil kese kese kese wallaahi moo koy tas te kenn du comprendre bala ngay comprendre fekk yow affaire loolu jeex na yàgg na ah nga ne ni dara gënu koo metti sosol nit loo xamante ni defu ko xalaatu ko Marème daal fi nga génn tey moom fi nga génn di sax laay wax moom baax na yow daal bu ñëpp meloon lu bari dina fi jóg man dama jombi man ci goro yi aawo yi bañ wujj ñaareel bu ñëwee rek ñu mel ne ku bëgg bëgg a dee ay maren foofu nga ko jàpp moom foofu la de asalaamaaleykum sama gars ah, moom daal ci deful dëkk waaye tey moom daal defati biir naa waaye nag Mère Diagne mii mere naa ko de Mère Diagne kenn may wàcc sama xarit bi ah, bu du woon marem li presque am de te mu bàyyi jàmbur bi Mère Diagne daal day bàyyi loxoom rek lépp tëgg ni yëpp mun koo fecc sax mais heureusement yàlla na ko seex dégg rek laa wax <laughs> ndax vendredi moom buy ñëw yàlla na tombeeg rek mu tegg lépp rek ndax neex salaamaaleykum waa maîtresse de mon mari ñu def mbaa yeneen ci jàmm seen série bi neex na trop trop trop moom laay seetaan waaye nag Marème yërëm naa ko ci benn côté ndax mère bi bugg ko Lalla kese la bëgg gis la geste bi mu def ba dem hôpital Jalika nag ku ma yërëm la ku ma yërëm la xayitam yépp ñoo ko wor kii mu dese nii defe ne mooy xargan ci war ko la jëm ndax mi ngi ni papaam lay lay lay génnal moom bàyyi na loxoom joor bàyyi na loxoom trop waaye biram mooy saay-saay biram moom moo neexut a xam di ko bàyyi <laughs> xanaa jëli ko jëm ko comprendre rek moom laa ci xam <laughs> en tout yàgg-yàgg day ñàkk man li ma gis mooy yàgg-yàgg joor dina ñàkk c'est parce que biram ba léegi dafa bañ jaarika xam naa ne yàgg yàgg koo de moom yaakaar naa ko moom. maa ngi bu baax di leen wax ni que film bi am na sens trop film bi dafa neex macha allah parce que culture Sénégal daal te dañ ciy jëlee ay njëriñ tamit te ñu ngi ciy yeete bu baax parce que ñu ngi wax ni que wujje wujje bokk wërsëg la wujje du rey kenn mais laal la pourquoi laal la nangul wujje laal la moom mooy kan nekk na aawara kenn du dugg. bu nekkutoon loolu donc kon xanaa kenn dugg laal na bàyyi li muy def xam am benn sens parce que li essentiel li mareem jëkkëram bëgg na ko bëgg na jëkkëram loolu moom sens li muy sëy ni mu waree na bàyyi def mère bi tamit jox naa ko tool parce que mère bi dafa war a xam ni ñoom ñëpp moo leen jur moo jur seen jëkkër dafa war a yemale mais wuru ànd ak kii war a bàyyi parce que li def nii benn sens te laal li mu def tamit jox naa ko tool parce que amul benn sens nit man loo ko man noonu moom rek. waxal dëgg bi mais même pas nga wax loo xam ne amul parce que lii de manque de confiance day indi manque de confiance jëkkëram di wax tamit jëlee ko tamit ku am fula la fi mu teg tànkam foofu la bu ko mos bàyyi parce que sëy ma sëy ma biram ak joor du dem fenn seetaan nag moo dàq ci daje maa leen nuyu bu baax nag di leen gërëm di wax ne seen fenêtre bi macha allah neex na trop ak saa su dama koy suivre macha allah kontaan naa trop ci yéen. Hmm, waa mais salaamaaleykum yéen waa Lu Xew yéen a ngi ci jàmm. seetaan nan trent 38 bi neex na trop macha allah Marème nag gis na ni moom mi ngi dox jàmm digganteem ak Lalla mais Lalla moom moo doxul jàmm moo gorom bi te mag moom du doxalee nii mag du doxalee nii vraiment Marème nag yow danga ma neex yow ku neex nga macha allah li ngay def dafa neex dafa neex trop mais Jalika tamit moom na dund leneen comme que moom moom dem na ci biram te biram moom moom jëtta topp parce que dem na ba takk euh, xaritam kon kooku yaakaar naa ni moom da ko war a bàyyi dund leneen te gis na ni kii ki ko bëgg nii mi ngi koy jàppale moom na ci jàpp moom tamit na sëy moom wan ko ni ko yow doo dara wan ko ni ko yow doo dara comme que xaritam moom moo xalaata def lii moom na ko wan ni yow mii li nga def nii yow doo dara merci kontaan nañ ci yéen nag film bi neex na trop macha allah. salaamaaleykum nuyu naa leen wàllu xew TV di leen ziar yéen ñëpp bàyyi ma kenn di ñëw rek ci épisode tey jii euh, bi nga xam ne moo daw tey di kontaan ci Marème rek Marème daal maa ngi bég ci moom lool ni mu def noonu la jigéen daal moom bu bëggee sëy day ñàkk jom waa ñàkk jom daal wàññiwul dara ci jéeg buy sëy bëgg naa jikkoom daal Marème daal instant bi ëpp na leen doole barke yonent bi <laughs> waaye lu xew daal tey moom série bi neex na ki série maîtresse daal tey neex na neex na trop macha allah mhm. daal bëgg naa lii man jéeg daal ñàkk jom da ciy baax Marème daal maa kontaan ci moom kontaan naa ci moom trop liñ naan moom jéeg dangay ñàkk jom moom muy dëgg piir ba moom sa ma ne ba moom sa waay ma lii rek waaw gëm leen yàlla nag <laughs> wujje moom du dara bokk wërsëg rek dañ ko wujj dara bokk wërsëg la yàllaa leen boole na rafet rek moo gën muy ñaaw te heure lu mu dugg nag ndeysaanam yàlla da koy weer <laughs> ba dara du sotti mais nag mu ngi noonu jeeg daal moom li ma leen di conseil daal moom mooy ngeen muñ te seen jëkkër yi waaw moom dara bokk wërsëg rek waa salaamaaleykum waa bi Marodi TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen laaj seen jàmm seen jàmm yaram di ñaan sama audio bu fekk leen yéen ñëpp si jàmm ñi si panel bi ñëpp maa ngi leen di nuyu di di ñëwati na ci film bi film bi neex na trop trop trop sax parce que man bi passé dafa am tuuti lu ma si rëccoon rek fi Marème doon téléphoné na man fi seex doon waxee Marème saaga rek ci laa yemoon loolu moo taxoon ma foog ne Marème <laughs> moo saaga ndekete Marème moom lu baax rek la si jublu woon te Marème moom fi mu teg tànkam moom noonu la na seex moom tam jéem a nekk góor gu dëgër gaal jéem a yor ñaari jabaram yi ku ci wax mu déglu la xool la nga wax na dëgg la wal dëgg waaye na Marème yàlla setal na ko tey ma ne ko yàlla setal na ko ba yem na ci yaayam ma seex yem na ci yaayam mu naan ko dinaa fexe ba seex fase la moom daal na jàpp te dëgër jàpp bu dëgër dëgër dëgër jéem a téye jëkkëram non la yi moom noonu rek lañuy def aawo yi moom mooy loolu aawa <laughs> yi daal mooy loolu ñaareel yi moom dañoo yor seen seen jonge na Marème dafa jonge de man noonu laa ko bëggee na parce que man ñaareel laa damaa bëgg ñaareel bu jonge jonge ci biir jonge ci biti waaw téye sa jëkkër bu baax a baax a baax a baax xam fiñ koy jaar loolu rek la la moom ma ñëw si laal la laal la moom dafa tarde moom aawa bu tarde la aawa bu tardé naka aawoo fen ak wax lu dul dëgg <laughs> dëgg dafa mooy njëkk mooy mujj waaw mënoon na wax dëgg rek koy seex dina xam fi na seex dem na ba xam dëgg gi léegi na duutu ko respecté ndax danaan kii fenkat la lu mu ko waxati du ko gëm waaw doy na waar daal doy na waar trop sax may ñëw na si Jalika Jalika moom it tas na dem na ah na bàyyi biram moom tam mu dund dundam seet ku ko neex mu ànd ak moom tam mu dem seet ku ko neex mu ànd ak moom mi ngi am na waayam yu baax na ci tey bu dëgër daf fàtte biram fàtte xaritam boobu man sax bëgguma jaar tur parce que xarit moom mooy loolu na man mi jaar naa ci ma ne ko man mii di wax ak yéen jaar naa ci xarit moom baaxut xarit moom jigéen bu ne war na koo daw su suma ko ne ci néegu sëy waaw ma ne ko xarit moom yàlla nañ ci yàlla sax parce que am na xarit yoo xam ne moom mooy loolu xañ na nag am na xarit yu baax waaye xarit léegi sii dañuy ñëw sa biir xam sa biir xam sa biti génn la na di la reetaan na maam day na waar daal film bi daal neex na neex na neex na ma ne ko neex na moom yàlla moom baax na jërëgeen jëf maa na yéen def yéen a ngi ci jàmm naka foofu ah film bi neex na macha gëm nag ah, ah biram nag ah, biram moom moom moom ni moom day na waar moom film bi na trop trop trop macha allah. asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu ku nekk ak sa ak sa sant waaw voilà ñu ngi jéem a léegi la ñu seetaan seen euh, kii euh, épisode trente huit xaw ma loo wala maîtresse d'un homme marié waaw seetaan nañ ko vraiment waaye moom neexoon na macha allah seex nag. il faut wala mu mu réaliser tuuti quoi Cheikh balaa muy def dara nag mu toog mu dal moo ci gën quoi vraiment vraiment mu bañ a jékki rek tëb nii c'est pas bon quoi vraiment góor la góor yàlla dëggantaan la voilà bala muy def dara nag il faut mu réfléchir d'abord moo ci gën quoi voilà en tant que cas Jalika nag Jalika moom tamit nag alors voilà il faut mu bàyyi euh, xaritam yooyu quoi. voilà mooy ancien jëkkëram bi ak kii euh, xaw si joor la xaw ma voilà na mu lu muntu doon rek jëlika moom nu fàtte affaire yooyu voilà parce que comme joor léegi trahi na ko alors vraiment vraiment nu bàyyi ko noonu rek wala xam na rek ndogal yàlla loo quoi vraiment léegi nag seex nag mooy am kii problème seex nag mu bàyyi moom tamit jëlika alors en temps jëlika moom tamit dund dund moo ci gën wala jëlika gis na léegi yàlla wala ku koy bégal wala seex nag na bàyyi jëlikaat dund dundam ku nekk dund sa dund quoi moo ci gën voilà en tant que kii nag rakki nag waa ki vraiment moom dem fu mu nekkee ni moom léegi léegi moom vraiment vraiment xelam bi commencé na jaxasoo waaye maire bi nag alors voilà euh, mais bon il faut mu wax dëgg si ji kii euh, kii quoi rakki moo ci gën bi léegi comme. rek yi commencé noo ko xam mais maire bi mu wax ko dégg rek boo ci gën une bonne fois quoi voilà mais sinon après bu yàggee rek alors voilà mun na di affaire bi day kii koi en fait wala waa yaay seex euh, nag yaay seex vraiment moom tamit euh, maire bi waa comprendre nañu affaire ban kii la bëgg ko en voilà en tant que Mariam Mariam moom da mu dal xelam tuuti moo ci gën gis nga léegi dem na hôpital bi gàttu bi nekkoon foofu lekk na yëpp en même temps waaye affaire boobu nag alors wala dañ koy foogoon rek ay gàtt xel ou des machins tout mais bon fekkee du question ay gàtt xel ma Mariam nag alors voilà Mariam alors franchement franchement mu xool mu xool ci boppam waaw mu xool ci boppam bu baax a baax a baax moo ci gën yaay seex wax na ko léegi ne dina jéem a xool fexeel wala mu gé pour mu génn si sëy bi alors en même temps seex seex dugg na waaye moom comme mère bi moom ko wax loolo xam nga goro yi yàlla wala da ngay doy waru quoi vraiment mais bon yam mu xool si boppam bu baax voilà moom tamit mu xool boppam bu baax a baax a baax moo ci gën nii moom nag ëppal na xaw na ëppal tuuti quoi vraiment xaw na ëppal tuuti. waaw nuyu naa leen maîtresse no marié maa ngi lay nuyu ku nekk si tur sa sant seen épisode neexoon na macha allah tey moom vraiment macha allah. asalaamaaleykum sama gars yi yéen waa maîtresse ñu leen di nuyu di leen ziar di leen wax épisode tey moom neex na trop am na sens macha allah am na sens lool lool lool li si gën a neex nag mooy ka Marème ni def ba see xam dëgg gi ak ni mu leen bettaatee maire bi di wax na dinaa fexe ba fose la. loolu moo si gën a neex tey daal épisode bi gën na neex moom ak Jalika moomu ni mu fekkante biram ak faram bi ak faram bi ni mu def biram tamit lool neex nañ si trop macha allah moom moo amul benn faute amul benn faay neex na trop trop trop trop fin li ñu doon xalaat suñu xel yëpp loolu lañ joué wax dëgg yàlla neex na trop trop di leen ñaanal rek xéewal barke dem ba mu nekk ay labeli labeli label ngeen ngeen ngeen kenn ku si dem daal ba am sa yëfu bopp am si lu kawe sa njort si bàkk Seexul Xadim na trop. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tuub di jégalu bu baax gëj naa tabbi waaye nag vraiment ma ñëw rek ci série bi maîtresse d'un homme marié épisode trente huit vraiment tey moom gis naa ci loo xamante ne daw na yaram lool lool lool ah Marème Marème nag kontaan naa ci moom parce que lii rek laa bëggoon mu arrêté la mais Marème lii na jàpp foofu rek bu mu ko bàyyi Marème man kontaan na ci lala moom du dara lala du dara lala na bàyyi nu mu mel lala baaxul lala baaxul mère Diagne moo gën a bon ñëpp waaw mère Diagne dafa bon ah nañu bàyyi xale bi mu sey xale bi bëgg na jëkkaram jëkkaram bëgg na ko te xale bi sey moo ko tax a jóg nañ ko bàyyi mu sey ah moom presque laajul Cheikh Diagne dara nañ ko bàyyi mu sey waay ñii dañoo iñaan loolu waay waaw bu loolu weesoo ma ñëw ci Biram ak Jalika Jalika na xam ne joor du xarit te te joor nu mu def noonu dëgg la Biram ëpp na ko doole ko def loo ko ko mais nag Jalika it bu bëggee jël loolu def ko ci boppam day son rek Jalika na dem xam ne am mën na am ku gën ki nga xamante ne mooy joor mën na am ku gën Biram waaw Jalika na jàpp ci xaritam bu jigéen boobu nga xamante ne chaque jour fu Jalika jaaxle mu ngi ci wetam di ko neexal di wut li ko neex waaw euh, même waa ji nga xamante ne nag mooy ànd ak Jalika ni ah man de moom maa ngi ñaan Jalika dem seeli kooku maa ngi ñaan Jalika mu dem sey ci kooku parce que kooku ah wax dëgg ne yàlla dal na xel daal parce que day naroo borom yërmande te bëriwul problème. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Lu maa leen ziar yéen ñëpp di leen baal a te di leen baal yàlla boo leen jégal waaw dama bëggoon a participer si série bi man moom série bi wax dëgg yàlla maa ngi koy waaw depuis mu commencé ba léegi moom série bu ma neex la waaw neex na ma trop moo tax du ma raw même bu ma rawee tele bi sax damay ñëw seetaan ko si net bi waaw neex na ma trop mais man moom Marème moom fant Marème laa waaw Marème moo may daaneel wax dëgg yàlla mais laal tamit moom ni muy doxalee wax dëgg yàlla rafetlu ma ko. parce que comme que moom mooy moom mooy mag rek moom mooy jiitu si kër gi wa Marème woo na ko si jàmm waroon na koo nangul quoi waaw waroon na koo nangul mais moo gën ni muy def nii xam nga di di ko di ko di ko taxal ak yooyu yëpp xam nga yooyu rafetul quoi kom que moom mooy jiitu si kër gi rek waroon na ko mën a rafetal quoi comme que Marème woo na ko si jàmm yooyu mais Marème tamit nii rek la mën a réagir parce que laal la tamit comme que ñëw na ne ko nekk si jàmm moom tamit mu bañ moom tamit lii rek la mën a def waaw loolay loolay wax ji. waaw mais maa leen ziar yéen ñëpp nag di leen baal bu baax nag di jégalu si kàddu yi. salaamaaleykum Marodi ci film bi film bi nag neex na neex na trop neex na moom ñu nekk Europe macha allah ci la ñuy wétaliku dugg ci YouTube bi rek di seetaan seeni film neex trop neex trop nag waaye nag eh, aawa buuru këram moom man mii aawa waaye nag mere naa ko trop. ndax li mu def moom du yëfi du yëfi aawo li mu def du yëfi aawo parce que Marème moom mi ngi woote jàmm moom muy woote ay lan la muy woote ay ndax lan la waru a def loolu daal man d'accord ma moom lan la moom moom Marème moo waroon a ñëw di def ay affaire moom mu koy wàccee kon moom moom muy aawo jiitu ci kër gi di aawo di nday jëkkër waru woon def loolu ndax wax dëgg yàlla kontaan naa ci film bi trop mais laala daal instant bi mere naa ko trop taban bi film bi di doog commencé laala ku ma neexoon la ko toppatoo këram toppatoo ay doomam toppatoo boroom këram kon nag benn jigéen comme yow bu mu jóge fee rek bëgg a yàq sa sëy kenn du ko def na yaatal rek comme moom mooy aaw na yaatal mareem ñëw ñu juboo nekk benn man daal kontaan naa ci film bi jëlika nag tamit na muñ rek te xam ni nit moom dangay ànd ak moom mais danga ko jàppe sa jikko parce que tamit foogoon na ni àdduna du yàgg ba xaritam nangu jëkkëram waaye xam nga rek nit ñi moom ñëpp yamuñu parce que fekkee moom lam xoole ak Jalika moom foogoon na ni àddina du yàgg ba xaritam nangu jëkkëram tamit loolu tamit man rafetlu ma ko xaritam bi moom li mu def tegu ko fenn rafetlu ma loolu moom dëgg yàlla moom naa defee neneen lu loolu. asalaamaaleykum waa maîtresse maa ngi leen di nuyu. yéen ñëpp si seen tur ak seen sant di leen ñaanal jàmm ma bëggoon contribution tuuti wax ci euh, épisode bi passé donc maa ngi déglu commentaire yi mais aussi euh, Jalika ci premièrement si Jalika laay wax parce que Jalika euh, maa ngi dégg ñu ne affaire bi waru ko metti si war na ko metti non seulement bàyyi na biram mais aussi eh, li rakki def dafa ñaaw parce que moom fi mu teg rakk yi daf ko teg comme sëram parce que affaire bi euh, ku nekk danga koy nat ci sa bopp euh, su fekkoon ne yow yaa am sa xarit boo xam ne danga ko jàppee comme sa sœur seen dernière waxtaan daf ko ne ñun ñooy ànd pour de bon et de donc kon kooku daf ko jàppee comme sœuram kon Euh, lu xaritam bi def dafa ko trahir te trahison bi moo metti donte sax am na góor bu baax bi nga xam ne mi ngi koy jàppale donc mun na si concentré wu mais aussi affaire bi il faut mu def ko choc même bi muy génn mm, xaritam bi mi ngi gis photo bi mais nit soo xamul lu bon doo xalaat lu bon par exemple je je le exemple sur moi su fekkoon ne man la tey sama xarit di xool sama photo jëkkër duma si am xalaat bu ñaaw donc peut-être moom aussi loolu moo ko dal mais c'est pas méchant euh, Lalla nag euh, maa ngi dégg ñëpp a ngi koy critiquer c'est bien euh, mais nag voilà xam nga rek jigéen moo mel noonu dafa fiir ku nekk da ngay def c'est que Marème moom. elle est baax na rafet na des trucs comme ça mais dafa xaw a daal Marème su teeyoon kenn du ko gën mais Marème teeyul maa ngi jégalu nag suma ma juumee ci wax bi et je vous embrasse tout yéen ñëpp maa ngi leen di def gros bisous et gros coucou ngeen baal ma suma ma juumee à la prochaine. waaw waaw film bi si nañ ko bu baax a baax mais euh, ki ma dégg muy wax léegi naan dafa am déception ci maire bi pour maire bi war naa xam ne am na doom ji jigéen euh, ba mu doom yu jigéen ku ko def loolu du ko neex waaw loolu dëgg la mais nag ndaw si boo gisee mu ñëw ci hôpital bi surtout maire bi dafa ñëw pour kookali leen ñaawal leen wan na leen li ma jéem a dàqaleeg Cheikh Diagne mais Cheikh lu ma ko wax lay def loolu la wone waaw parce que numéro bi ndaw si daal day def ci suuf te bu seex ñëwee mu wane ak mbaax loolu moom wax dëgg yàlla man contour naa ko daal waaw ci Cheikh Diagne leen ndaw si ni muy doxe dafa war a xam ne xel kii koy yàqal mais defaralu ko parce que jàmm ngi nekkoon kër bi mu taggee ndaw si la kii la ko ñàkk même bu dul loolu Cheikh Diagne dafa def faute parce que ndaw si da ko doon indi néegu jabaram avant mu koy takk kon ndaw si man mënuma ko jàppe ku baax daal waaw parce que góor takkagula di la indi nekk jabaram leen lu ne mu def ko boo amee xel dangay xalaat ne kii nii ëllëg bu ma bu giseen keneen bu gisee keneen ku mu bëgg nii lay def dana ko andi lu ma nekk waaw sa baaw moom loo ko def boo takkee ñaareel da ñaareel ba jàpp ne da nga ko def moom waaw parce que jigéen ñi ñu rafet danoo bari parce que jaaj mën naa génn gis keneen ku dàq mbareem aleykum waa Marodi TV na ngeen def yaa ngi ci jàmm waaw dama bëggoon wax ci sa dama bëggoon wax ci maîtresse d'un homme marié ci série bi intéressé na trop nit ñi neex na lool neex na trop waaye lu lam problème bi mooy lan la lan la moom dafa dafa bàyyi loxoom trop nu mu commencé woon noonu la waroon continuer wujj waru ñëw rek mu changé jikko nit moom nu nga doon def dem liggéey ñëw gérer sa si kër loolu la waroon def wujjee du dara pour que wërsëg rek la waaye ñu ngi rafet lool ci série bi ok jërëjëf